do accident mukk incha allah ba tey képp koo da nga yor ak damar ak lu mën a doon rek na nga wut limam lu toll ci juroom ñaari doom nga tak ko ci biir auto bi nga tasaare ko si biir oto bi maanaam koñ bi rek nga tak ko benn ci biir inshallah rabbi auto boobu du ma si accident batay bu xam da ko fet wala jaan matu wala bant bu am tooke wala yax na nga wut ñetti doomi limam nga ci benn bu siy def ndox nga nan ko non su ngoon jotee nga defaat ko incha allah rabbi bu mboolem dangan bu ma do ak bu ma do dina wacc ba tay képp ko xam da nga yor ak jur mo xam xar la wala bay wala nak wala lu ma do wala fas nga bañu sàcc ko wurul si ñeel ngay wut xoj ci am ndox ab dir nga seppi ko bëggee ko jur go insha allah rabbi jur go kenn du ñu sàcc képp ko xam da nga yor ak jur bëgg yalla aral lako ba bépp jur bu si naroon faatu da nga ko jaay wala nga rey ko da ngay fexe wut neefere yi lëkk neefere yi lëkk nga jaxase ko si li nga leen xonte insha allah rabbi bépp bu si nar faatu da nga ko jaay ba nga rey ko insha allah ba tey ci wàllum ndig lu metti képp ko xam ne suñu borom daal nattoo ndig lu metti da ngay fexe wut kaña lay sa genn nga dagg ko wut perkaal nga laxasee ko ko ديغوتك ان شاء الله ربنا تاغو ليك ميتي او الموت ان كنتم صادقين